dañu ñëw jógee léegi Youssou Mbargane vax jël suñu première dose vaccin bi ñu war a ak trois semaines euh, dañ ci content trop nak mu nekk grand jour pour nous grand jour pour population Tëngéej yi ndax exemple lañ leen jox dañ leen won ni ni vaccin bi baxna amul ben effet secondaire dara nekk ci té li bo gisee ñu def ko ma ànd ak imam Rachid mom tamit vacciné won na am na dañu won population bi nek vaccin dafa bax ndax ciow lu bari won na ci président de la république jël na xaalis bari def ko ci vaccin pour sauver population yi te lii rek moo ñu mën a génne ci mbas mi ñëpp vacciné wu. bu ngeen xoolee dëkk mel ni Israël presque ñoom retour retour nañu à une vie normale presque parce que ñoom ñëpp vacciné wu foofu donc vaccination rek moo ñu ci mën a dimbale. donc dañuy ñaax population ñoom ñëpp ñu préparé wu dem inscrire ci site ministère de la santé bi pour préparer jël vaccin bi bu ko ñëpp jël rek dina baax mbas mi dinañ tàggoog moom incha ku nekk 300 euh, 3 plus de 300 doses pour vacciner tout le personnel carte bi moy wane ni yow vacciné nga bientôt carte bi kuko amul yenn voyageur yëpp dootu ko mu def ndax tay yi dëkk yu bari dañoo tëj seen frontière bo amul carte bi wane ni vacciné nga doo dugg donc carte bi am na njëriñ top dama leen di wax ni vaccin mu ngi ni ñun def nañ ko ñu ngi ni taxaw imam rashid mu ngi ni taxaw vacciné wu na mu ngi carte donc vaccin bi amul effet secondaire amul dara ciowli moy bari rek mais vaccin yu bax la na ko ñëpp jëmu def président de la république jël ay milliards def ko ci vaccin pour sauver population bi ba paré ñi ay nit taxaw ne da leen di lor vaccin yu bax la. na ñëpp dem préparer wu vaccin vacciné wu ji